réew mi nag one time is joobin may brodo Lat Diop daal dégg naa moom dégg naa moom aate ah, loraas ba laay laa gardaaw wi lañ ko téye de gardaaw wi barke borom Tuubaa Mbàkke dégg naa léegi ici à Daawun léegi doon na li nga xam ne ni mooy gardaaw wi jumaay président jumaay ba fay ngir yàlla foo nekk ici à Sénégal kaay kaay kaay come on here come on ngi noonu di ko rey de mi ngi jàpp ko rey di bàcc rek ASM ki nga xam ne moo dooroon carte euh, gi nu mu tuddati ministre de lan wax leen ma yow. LONASE LONASE ba dooroon fi sport ñu ngi fay woo de daa ne wàllum xaalis lañ koy laaj fu mu dugal bi ñëw na de ñëw na de ngir jëm jàpp nit ñi du ñu ngi ñu ngi jàpp lan jóob de lan jóob ay waay Sonko yéen ak jumaa ngir yàlla defal leen yërmande yërmande yërmande la ñëw na nit ñi bëgg lan jóob ici ah, ah. daan ne ooy Lat doon na jël man ooy ay waay mbokki la Diop subaa jàmm ma dem eh, seeti Lat Diop garda wii lañ ko téye garda wii yàlla ko yàlla defal jàmm ku baax la woon nag sama xarit la yàlla ko yàlla defal jàmm day génn métti métti waaye day génn waaw